jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen di siyaar euh, ku ci nekk sa tour ak sant di leen baaluwaat àq bu baax ci ànd bu rafet bi nga xamante ne ànd ngeen koo wasaare làmb ñu ngi fii ci parcelle seet si Batika bari lu bare ci loo loo xamante ne war nañ ko mën a waxtaanee euh, ci keroog bi ñu demee ci point de presse bi boo Niang woote woon Pikine euh, gisuñu ko ci am na ci yeneen yoo xamante ne metti na ko ci làmb te bëgg na koo wax. xale bi di jibi yaata nga xamante ni moom it dafa feebar feebar bu yàgg dégg ngeen li nga xamante ni Pape Sarr wax na ko ci ak magam bi di liilu euh, ak mbokkam mi nga xamante ne ay njagañaaleem lañ euh, dégg ngeen lépp loo xamante ne jëlal nañ leen ko ñu wax ko fa gannaaw loolu dañ koy nuyu bàyyi ko mu nuyu mbokk internet yi su ko defee ñu jublu ci waxtaan champion maa lay nuyu waaw jiili ginnaaw jiili wasaare waaw ñu ngi lay fay ginnaaw bi ñu sante yàlla julli Seydina Mohamed sant suñu ñaari waajur waaw di rafetlu sa teewaay ndax tey yéen a doon ñëw woolu waaw di rafet lu seen teewaay fépp waaw di ñaanal askanu Sénégal yàlla na ci yàlla tuur xéwal ñu fi tawatoon yàlla may leen wér ñëpp daal maa ngi leen ñaanal daal ñoo ku ne loo bëgg soxal yaa ko xam nit mënul xam mais yàlla na ko suñu borom def muy lépp nga xam bëgg soxal suñu borom def yàlla def seen chaîne mujj do nekk télévision raw ñëpp daal ñu ngi leen koy ñaan ndax seen yaru seen seen ñëw rafet na seen comportement rafet na ñëpp a ngi koy wax ci àdduna bi daal di leen ñaan yàlla moo am lépp daal yàlla leen ko yàlla jox parce que man dama jékki-jékki ci suba nga woo ma téléphone bi ma woowee fekk na maa ngi nekk ci tournage sax mais après dama pare jël sama téléphone woo la woote bi lan moo nekkoon sabab bi. waaw woote bi toog toog télé gis benn xale boo xamante muy muy jibi muy muy jibi ama doon ànd ak sox yàlla def mu am tawat foofu ci diggante bi ñëpp xamoon ko Pikine da daan bëri tey moom yaayam ak sama xaytu mag muy joojo ñoo presque ba ñuy ànd ëpp na 40 ans. boobu man juddooguma sax ñu nekk ay xarit man yàggoo dégg mu ne ma batikat soq da doon ànd ak xale bi ndeysaan dem yàlla si la mujj def choc noonu moo xam yàgg naa kaa dégg mais ñoom sax xamul ni man xam naa xale bi rakk yaayam na ñoom duñ ko sax xam moo tax ma leen àddina lépp mbokk la hmm. ci laa toog ba xam ne déggu ay at ñun commencé xale bi tëdd ñaari at ñetti at ñeenti at dañuy dajale li te matul te ay nit yàlla yi nga xam ne ñu ngi si dëkk bi hmm. waa ñi nga xam te mën na dimbali dit loolu dafa ñaaw sax ndax xale bi nga xam ne ñëpp xamee ko Pikine tey ñëw taxaw am de ñëw xale bi feebar ñun ñi taxaw naan léegi te ay autorités yi fi nekk ci àdduna bi kenn xam nu mu toll hmm. ñi nga xam ne yàlla denk leen àlal ñi nga di ci am traatal mustaxim ne fi war ko def war nañu jàppale xale bi loolu balaa war a ma trois mois xale bi war nañu dépassé ay mbiram hmm. ah mais les Sénégal du ñu bëgg kuy dimbali léegi nit dañ lay wane télé hmm. wala nga ànd ak waa gis nga loolu yàlla bëgg ko benn télé fi am mooy télé suñu borom jant la fo weer foo dem mu topp la amul guddi amul bëccëg loolu mooy télé bu mag bi lu ñu wut ci tele bi mooy defar sa àddina ba buggee sa biir bàmmeel am loo fa fekkaale am ñu la fa mën a wéttal ndax lu baax loolu moo la mën a wéttal ci armeel keneen mun la fa wéttali feebaroon na joxe naa fa lii boo dee sa bàmmeel sa biir bàmmeel moo la teyaaba nga fay fekk dara mun la fa fekk loo bëgg-bëgg ba man doo ma fa gis sama wet tey bu ma deewoon tey tëdd ñu dugal ma ci ruq am na denc ma fa Papa Sow du ne sama wet nañu wax te dëgg Modou Lo du ne sama wet ña may laaj maak ñoom kese la kon nañu delluwaat suñu xel ci yàlla xam ne xale bi dafa feebar ndogal bi mën na dal ku ne ànd ak man mbër laa xamaa li ma xam ci mbër ñoom nekk nañu daal mënuñu koo xam mbër léeg-léeg lay def gàllaaj boo xam ne yow muy mbër mi du la jàpp mais ñiy topp lay jàpp dëgg la wala dëgg man xam naa làmb man nag may duma ci nëbb lu yàlla bi dama la koy leer nga dégg ko kon tey xale boobu ñëpp ko war a taxaw takk ay banderole yu rouge mm-hmm. yuux comme ñoom booy ñaa wooy fi ay ëmma mm-hmm. seen am de naan ay làmb yooyu balaa ñu woote loon nañu lijjanti xale bi ba mu am yar wér muy parcelle un ba vingt six waaye Tamba képp kuy ter dëkk bépp ñoo war a def na xale bi ci làmb la bokkoon mm-hmm. ndax ñu bëgg Ama ba di ko supporter dafa bëri te ñu bëgg keneen di ko si soq dafa bëri ñu Modou Lo ñu di ko dafa bëri Yékini joor tey bu ko lool doon booy ñëpp a ciy sonn Modou Lo waxi nopp kon nañu àddina xoolaat askan nuñ koy defee ñun nit ñi di ko wax mais xale boobu mënut a def accident ñëpp taxaw di ko feetaan ah autorité yi nga wax wax ba sonn loolu dafa ñaaw xoole keroog yaay ji lu mu di jooy télé bi ah billaay wallaay ta sama doom ji fóotal na ma raxasal na ma def ah loolu waroon nañ ko faj une minute Sénégal du ñu dimbaliti ñooñu xam nga lan la ñuy dimbalit da ngay gis ah da ngay gis benn mbër daan ñu may ko vingt millions mhm. may ko oto may euh, jël jël quarante millions tegaat ko ci loxo ni ko nga baal maaq kat weer bi dafa sori yow nit ki feebar ci nga war koo fa ci kàttanu yàlla yàlla bindal tiyaaba yonent bi yow ah, nag bu ñuul be maa indi camion ceeb boobu loolu dafa ñaaw ci dëkk bi bëgguma loolu man dama bëgg chaque jour charia comportement laa bëgg ñu wax ci àddina bi xale bi ñu jël ko en charge autorités yi nga xam ñoo fi nekk waxuma ñi nga xamante ne mooy paa yi nga xamante ni man woowu ma ñooñu wala borom alal yi nga xam ne affaire taar la ñuy jaay bu weeru koor jotee du ñu woo dem fànn nga lekk ay plaatu ceeb nëbbatu bu ñu ñëwee seen kër di jaay kollu gore wala déq man soxloo ma ñooñu ñi nga xam ne ñoo bëgg Seydina Mohamed ñoom laa woo ci xale bi ñu jël ko en charge képp ku bëgg njool màkk woo naa la nga xamante ndax sëñ tubaa bu ñu ne njëkk bëgg ma sëñ tubaa dañ ko ci ndax dañ ko ci lim ndax ca cee bokk bu ñu ne kuccoob ñu la alaaji maay fi bàyyi ñes limaamulaay kunta kunta ñese ñoom ñëpp boo gisee ñu am tur am yonent bi lañ doon tagg moo tax ku tagg yonent bi rek doo ko réccu barke alxuraan nii ngay mujjee ñooñu rek laa bëgg ñu jàppale jibi dimbali ko ci faratas yàlla ak sunna am embarqué ko mottali xaalis bi nga xamante ni moo ko balaa vingt quatre heures naa dégg ne ah waa yi suñu borom def na lu gën nañ xaalis xale bi yóbbu nañ ko faj ni ko ñibbi seen si si doole yi suñu borom loolu daal la ñu xam nañ mais di woote ay ngummaay ku ne di sol costume waa Pikine taxaw mbër bee jógee fee ñëw fee commencé maa teewal diw wala maa indi diw gis nga loolu dafa ñaaw nañu takk ay banderole faj xale bi mu wér am de mbër bu la nit ki tey bu ngeen ànd mu lay jàppale ci làmb yow def ko comme sa bopp yow lu la nar a dal sax da yàlla dal kii ndax da ngay lu metti mais rafetul mais da bëri ñu fay la sa million nga lekk ko doo respecté ni doo faale nit ñi ah am de lii lii mu dëkk bi moo métti moo tax man lu bëri dama koo bàyyi jiili barke alxuraanu karim fii ku fi nekk yàlla sax boo ko nekkalee mu nekkal la boo nekkee ci ku nekkal ni ci ker mu nekkal la ci naaj bi loolu mooy àddina mais xale yi dañuy sonn ci mbër yi bëri yow xale yi dañuy sonn xale yi def nañu accident xale yi gaañu nañu rek ngay dégg jor loolu rafetul te xale bu ci demee ba taw ñëpp war a mobiliser wu ndax ku mu ci daloon da ngay ñëpp ay jullit lañu ñu ma tey charte écrit wala parti joma charte islam laa jël ñi gëm say naam loolu laa gëm charia boobu laay waxtaane ci boppam ma xamala ci loolu amul ku ma ci def ni wala laa wala kër loolu moo rafetul autorité bu ñi nga xam ne ñooñu dañuy dimbali ngir yàlla ñooñu laa woote nga am nañu alal ñoo jàpp xale bi jël ko en charge waxuma jaay taal yi nga xamante ne dañuy bàyyi seen famille lekkuñu añuñu naanuñu ñëw di fa indi ay 4 millions man soxloo ma ñooñu te ku koo ku ku war ay mbokkam boo ko jeexee dakaar di nga gis ku xonet boo ko gisul nga dem ginnaaw Louga di nga gis mbokkam bu xonet boo ko gisul ginnaaw demal ginnaaw mbir kilaan nga yor fa di nga gis ki mbokkam xonet na bu la réeree Dakar seet ko ginnaaw kuruñ këliñ foo ko xool nga gis nga xam na mbokk bu xoolee kon waaw mi ngi noonu waaw wala mu fer ko ginnaaw wuy ma non non dëkk boobu dëkk bu baax la du ko fa fet am de na ko fa fet ginnaaw waaw yow tugal bu nekku ginnaaw toogal dem na ginnaaw mbir ki naan xujj du caa nañ ko xool foofu yooyu mooy lu raf gis nga boo ñëw di jaay VIP si am na mbokk boo xamante añu réeru waxuma ñooñ soxloo ma leen fa ñooñu jaay saar lañu wala dëkk bi Sénégal àddinaa leen tax a jóg man ñi nga xam ne yombal xeam lu ñu bu ñu noon tey yombal xeam ñu ñuy pare léegi dem léegi ndax xam ne ñu ñu liggéey seen ginnaaw seen kanam dafa rafet ñooñu laay woo dinaa ci ñëw waaw mais tawat yàlla suñu boroom moo koy teg nit tey mën ngaa ànd ak nit nga nekk nit ngay ànd ak mbër tawat dab la loolu yàlla suñu borom mbiru suñu borom la mais est-ce que jotul ñoom mbër yi ñu xoolaat seen bopp parce que ku ci nekk encaissé na quatre-vingts millions cent millions deux cent millions ñii encaissé nañ vingt-cinq millions lan moo tax ñoom mënuñu jël seen moyen bopp ñoom mbër yi ñu dajaloo seen association yooyu liñ doon jël di ko yóbbu ci état ci ay feebaru coronavirus wala yu mel noonu tey ñu xam ne kii xale la doomu làmb la daa bëgg làmb nekk ci ba ndogal bi daal ko lan moo tax mbër yi ñoo dajaloo ci lu mel noonu di ci jàppalante parce que saa su ne yu mel nii rek duñ ci gis loxoy mbër. waaw dëgg loolu rafet la mais ak mbër yooyu woote ay association yooyu yëpp dëgg la mais yooyu gis na yooyu man bëgguma loolu. yooyu yooyu affaire de gis seulement yooyu yooyu wax ñu ay yow jóobu àll ku la ëppale loolu dafa am njëriñ fekk sa koñ boo xam ku añ du reer ku ndékki ay ginnaaw seen ginnaaw kër baraag yaa nga fa école doo jox loolu say mbokk mais yooyu pour jéem a woote pour jéem a dóor dóoraat ci biir yooyu dañuy yooyu ñun gëmuñu loolu ñun gëmuñu lool déggoo li ma la tey ñooñu yóbbu ko fa Macky Sall amulu ko njariñ teg ko fa amul ku amul leen fa njariñ saabu yooyu nañ ko jox waa koñ bi ñu féddoo ko fóot ko seeni biir moo gën lu ñuy wax am de jox ko armeel yi ñuy sangi néew yi jël saabu yooyu dimbali ñu am ci yàlla am ci yonent bi loolu mooy yoon mais ay dajale maa ngi woow yooyu gis nga yooyu yëpp ay gistal ay dóor la ñuy def yooyu yëpp ay dóor la man soxlawuma loolu man dama bëgg nit bu tawetee feebar yàllaa koy teg ci mais bu yàlla tegee feebar ci nit yow nekkat ci wetam ñëpp dañuy kontaan ci yow tey bi ma gisee soq affaire bi moom la dal ci booy bi mais chaque jour soq mi ngi foofu toog léegi dana gis Ama Baldé gisoon naa benn ente bi ngi foofu toog mais ñoom suñ ko joxul dara nañ ko ne nii gëmal lii yàlla moo def ni destin nii la am yàlla loolu dafa bokk ci charia loolu dafa bokk ci charia boo boo amul xaalis amal wax ju neex ñëw di waxtaan moom léeg-léeg nga yëkkati ko côté bi nga tëddee métti na kat defal nii deux minutes tourné waat am xaaral ma yóbbu nga dem toile xam nga yooyu yooyu yaa ngi dimbali te loolu dafa jafe waaw yooy yëpp xam naa ñoom ñu ñoom ama ñoom soog ñu ngi koy def mais xëy na jàmbee pexem yàlla ak dogalum tey association mbër yooyu yëpp tey bu ñu xoolantee mbër yu mag yi ci ñu taxaw xool ah kii kat ni xaaral ma indi deux millions kii ni xaaral ma un indi un million wàññiwu leen dara képp ku ma sa fayeeku quarante millions wala trente millions boo ci génnee un million euh, wàññul dal boo ko amul nga ni sa autorité wala sa ménager wala ñu lay jàppale alma un million nañu bàyyi njuuj njaay fii nit mënu fi nax nit dofuñu man maa ngi nii tey bu ma neexoon def sam ñi may commerce wala ne commencé woon kat soixante ginaar la wala alma cinq cent wala deux cent dañ ma koy abal nañu bàyyi xuuxalaay tey buñ ko mobiliser mbëri yooyu tey ñu xool lu bon bon dina mat lu mat vingt millions mhm. am da kee Cheikh Kouyaté mi di ko li mu def dégg naa ko lu rafet la ñu bois Cheikh Kouyaté yàlla na ko yàlla defal daal heure bu dugalee heure bu fubalee daal dugal mhm. waaw yàlla na raw équipe nationale mhm. waaw waaw yàlla na raw ñi nga xam ne joxewuñu waaw Cheikh Kouyaté ku baax la yàlla na raw ñi nga xam ne joxewuñu ndax joxe dafa baax yàllaa ko santaane waaw mi ngi noonu joxe dafa baax yàlla na ko yàlla dimbali fu mu bëgg moo ko xam yàlla na ko suñu borom eggal loolu mooy yoon mais mbër yi dañuy taamu ñoom di leen jox mais ñoom do nanguwuñu joxe loolu baaxul gis nga loolu ba loolu da lay loolu loolu amul barke loolu loolu baaxul déggoo li mam maam Cheikh Fall boo dee kon mooy mooy képp nit koo xamante ni da daan liggéey di ko joxe soxlawul dara billaay moo ñu ñëw moo fa njëkk a di dimbali gaay di lépp defar daat dëkk bi ñëw ñu bu ñëwee tey am de ba mu ñëwee ba fekk ñu ne waa kër gi bàyyi leen soq tey wal maay soq tey wal di root booleeg liggéey di ko joxe ak soxlu xam ne kooku koo koy nit mais mbëri dañ leen di jox mais ñoom nanguwuñu joxe koo ca xaar ma yóbbu la kee xaar amul yóbbu yow yaay xool li nga am sa afaka yàlla dimbali fii ku fi fayeeku ay cachet bu rëy xam nañ ko ku ko fi fayeeku xam nañ ko dëgg xam nañ VIP waaw dëgg la loolu laa ku ne yëkkatee un million wala un million cinq cent dajale ko ci sama kàcce laa ko commencé dajale ko moom xam ñu dajale comme xale ñu jàppale ko ci ni ko jox nañ la li kat si diggante si suñu borom moo la ko dimbali. ci farata si yàlla ak sunnat Muhammad pour nga faju ndax yow xale nekkoon nga loolu dundal làmb. am de mais defuñu loolu. am de bu ñu defee ñu commencé def fee seen kii daay woote ñu ngi def autorité ñëw kii ñuy euh, sol ay costume yoo xamante gis nga yooyu yooyu laab nañu takk ay morceau lu ñu waroon def takk ay morceau yuuxu takk morceau yi ba pare yuuxu nañ jàppale xale bi nañ jàppale xale bi nañ jàppale xale bi nañ jàppale xale bi am de yuuxu ñëpp ñëw dëgg ñu jàppale xale bi mu faj loolu mooy yoon woote ma si Pikine kese nag. ah woote bi kon woowoo waa Pikine. du waa Pikine kese de woo mu ñu. waaw képp ku naan laa ilaha illallah muhammadu rasulullah dama la ci woo. ndax bëggoo dara julit yow ngay new nekk julit sa mbokku julit dara di ko met bëggoo ko keroog ba Macron waxee loo xam ne dégg nga lañ ko attaqué. Mm-hmm. dégg nga lañ ko attaqué. Mm-hmm. dañ koo dégg mu métti lu dégg dégg la am de mooy dëgg mu nga xam ne ñu toroxal ko ba ma xam ne moom mooy ñun julli lañ xale bi dañ ko war a jàppale xale bi dañ ko war a jàppale ñu nga yi nga xam ne ñoom ñoo fi ne bëgguma sax tudd ñooñu mais képp koo xamante ni daal sa alal da nga koo yor ngir Seydina Mohamed xam ne alal ji suba mën na xëy nga dem yàlla rek nga koy liggéeyal am de nga jàppale ji bi am de ñu yóbbu ko mu faju ba nekkaat ci ay mbiram ndax ji bi xale bu baax la amul benn problème juróomi at nit tëdd noonu ah bi lépp lu muy def dañ ko koy defloo loolu rafetul li dafa ñaaw sax bañ delee wax autorité bi ñëpp taxaw mel ni foofu mel ni Sénégal ay jullit néewuñu fi mel ni ñuy dimbali amuñu ñoom la ñuy dimbali ku dee nga gis ku commencé indi sa jasneer commencé romb jaay moustache bu tolloog fii ak maatam bu ñu ngay gàddu bopp bu wala dij yooyu dafa amul làmb dañuy dimbali nit ki am de Sénégal ah maa joxe nag bi wala loolu yàlla bëggul wala boo ko wala bu may ñëw journaliste wala kii yooyu ngistal la yooyu soxlawu ma ko yooyu soob yooyu paa yi nga xam ne bu weeru koor jotee ñu dem fànn ga lekk restaurant yi ñooñu laa yemale ñooñu considéré ma leen ci dara soxloo ma la man ñi bëgg yonent bi nga xam bu ñu tëddee yonent bi bu ñu gëmmee yonent bi bu ñu yeewoo seen kanam du changé heure boo leen fëggee noonu la ñuy mel comme Seydina Mohamed lu yàlla bind ci kaw suuf njool màkkaa la gën kuy sujjoor ci kaw suuf njool màkkaa la gën genre ñooñu ñoo ñoo ma neex mais ñeneen ñu soxloo ma leen a gis sax ci àdduna ñu ñëw attaqué ji bi defaral ko jàppam lépp dimbali ko mu tukki Europe loolu daal mën naa nit ñi ñu ma koy defal ñëpp ñu may dégg ñi nga xam ne ñoo bëgg yonent bi may atte charia ñooñ daal laa ci woo ndax loolu daf ma metti barke xale boo xam juróomi at fa mu tëdd nit di ko fa xool fu mu ne làmb sax bu gore woon mbéy ñoom bu ñu gore woon ñoom ñëpp ay takk lu xonq ni Macky kat du ñu bëri du ñu def dara suñu kon kay xëy na ñun mbër kat ñu dépense day demee noonu xam nga mbër mën na yor cinq cent mille wala quatre millions wala vingt millions ñeenti fan dootoo ko gisati loxoom xam nga mbër moom jënd dof lay jënd wala mën na dem ñaata terrain yoo xam ne jëndagoo yëpp xaaral pour tumu xam nga man yëpp am na fi mi noonu mais yëpp ñu ñu jàppale nga wax kat ah comme jàppale kat bëggatuñu def lépp ñu de annoncé wax ñu yóbbu ko am na mais nañu bàyyi nit bu nit bu feebaree bu ci xool ci ñoo bokk écrit wala bokkuñu écrit wala yow bu ci xool xool ci yàlla yàlla xamul féeréel yàlla xamul kenn yàlla koo xam mu ni ku ragal rek laa xam yàlla xamul tarixa de yàlla koo xam ku ma ragal rek la xam ko koy suñu borom suñu dinaaw yàlla moom rek la xam yow nga xam ne ragal nga yàlla kat xam ne kii feebar nga def yàlla nga koy xool mais Sénégal bu ñuy def dañuy def a def yoo xamante VIP wala na ma nit ñi gis wala la loolu dafa ñaaw jii di man bugguma loolu nit def man bugguma lool nit da ngay am comportement am yar ñu jàppale xale boobu moo gën bin jarul jaay loo costume costume dañ lay mujj costume ci suuf si kon loolu moo amul njariñ am déet ay costume ay xuuxal nit ñi waaye bàyyi leen loolu wala di tëkkul wala dara fii man borom alal bu ne yaakaaruma ko fi jiiri man yàlla yaakaar nit na ñoo may ma fii dix millions bu biiram yëngoo danaan ana toilette bi bu duggee toilette na muy def man it man mi yorul dara noonu laay def kon bu ñu xuuxal nit ñi nañu bàyyi li def bu ñu xuuxal nit ñi bugguma nag di ci wax wax yoo xamante ni day xaw a yéeme ci àdduna bugguma ko ci wax dama bëgg ñu jël jibi bi nga xam ne yaayam bu ndaw mooy joojo bu may bëre ba léegi may ànd di ma jàppale ànd ak sama mag looloo tax ma ciy def débat xam de ñu jàppale ko képp ko képp koo xamante naan yàllaa la fi tax a nekk ak Seydina Mohamed nga ànd ak xale bi ñu faj ko mu dem ci jàmm ñibbi si jàmm waaw li juum ci wax ji nag lu rafet ci wax ji yàlla la li ci dëng man la